وسلامي على الدريع الإيمان زنب المسكع والكبا وسلامي يا دابا يا دابا قلبي السلام عليكم ورحمة الله يا نبوك يا خارج نبوك طالبي يا نيوغا خامتنا يا نسافوتي نسين بي دي برخامي ين تي في فيزيون دو لا فايد اوترمو ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di jiital si nuyoo bi ak ziar bi suñu xalif cheikh mahi ibrahima ñes ñu koy nuyu bu baax di ko ziar di ko jox wàcc waayam waaye duñu fàtte porte parole di cheikh mahi sise ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare waaye di imam imam bu màgg boobu nga xamante ne mu ngi medina bay cheikh imam cheikh tidiane sise ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare tey ñu ñëwaat ci suñu deuxième numéro entretien exclusif tey ñu ñu dalal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 ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا حمة الشيخ اهد لنا بهذا المهدر في بنزرة تأتي لنا بزفر وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، ما نوي سن sunu الشيخ ماهي ابن الشيخ إبراهيم Ibrahima ما نوي ngi nuyu بارول ci porte سيسي السني الإمام الأكبر الشيخ أحمد التجان السيسي أكي سن خليفة داكر ريبريزانتا خليفة بي موي الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ إبراهيم نياس أكي مبوكو طالبي أك بوكو جلد يب مانجلين بي مانجلين زيارة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله نيم لي جاجفل تي نيو بي ما شاء الله مبتال بي كم نيجن كنجي سيه Tay mu ngi dalal Cheikh mohammed Traoré ñu bëggoon xam Cheikh bi kan moy Cheikh mohammed Traoré. euh <coughs> Cheikh mohammed Traoré man ma ngi tuddu mohammed sama papa moy Abdullah. machallah mohammed bun Abdullah Jama Traoré mu joggé Mali. mani man Mali laa juddoo mhm. foofu laa yaaree foofu laa màgg foofu laa jàng Eh, alhamdulilah kontaan na seen teewaay eh, bi ma nekk Mali jàng na ci daara bi ma jàng daara wàcc ak kaamil alquran ba pare jàng sharia ah jàng naa sharia lek dar lasma wi muqaddama ar sarafatul jawad bu ci xalil mu dawnatul kubra ci sharia mooy zohir bi ma jàng lool ba pare ma ñëw ci capital ma jàng foofu eh, franco arabe ma am sama diplôme tamit génne foofu après ma jàng ñeneen xam-xam yi baati ni encore loolu ma def lool après ma door a ñëw ci Sénégal fii loolu daal mooy Cheikh Mouhamed Traoré sama papa Abdoulaye la sama yaay Fatmatou Zahara alhamdulilah. macha mm-hmm. lay ndokkeel bu baax ci jaar-jaar bu am solo boobu bu riis boobu macha allah bi ñu indi Cheikh Mouhamed Traoré ginnaaw bu mu ñëwee Sénégal. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne taalibe Baay la macha allah ñu bëgg xam Cheikh Mouhamed Traoré ak Faydu. Mm-hmm. alhamdulilah eh, Cheikh bi loolu eh, sant yàlla bu baax baax eh, damay sant yàlla parce man boo gis ma ñëw ci Faydu bi parce que comme daanaka suñu waa dëkk suñu côté ci côté nord Mali ñun diini islam rek la ñu xam. diin islaam rek amuñu leneen bu dul diin islam. macha mais man lim bi ma jàng ba pare. Mhm. dama xool sama bopp am na lu ma mangi ba léegi. ginnaaw jàngal alquran. Mhm. jàng naa tafsir ci ñeenti sëriñ avant ma nekk ci faydu. ci ñeenti sëriñ ñeenti sëriñ laa tafsir alquran. Mhm. bon sama charia li ma jàng dem na boo cinq ou bien six sëriñ boo xam ne jàng naa foofu ci charia mooy téere charia yi. bi ma ñëw ci Bamako jangati sama am sama diplôme ba pare mais ginaaw lool yépp ma gis amna luma mangi ci diin islam amna amna bende benn serigne mal du ma tuddu mais serigne bu mag la ku siw la ku am mbolo la am nañ lepp wax deug de multimilliardaire la ma nek talibim damay togalé ak mom ci benn salle ma waxtan ak mom xaw ma sama deugenté ak mom ci benn barrage mais ginnaaw lool dama gis am na lu ma manqué toujours damay ñaan yàlla pour yàlla may ma bunt bu yàlla boole ma ak benn sama xarit bu baax mu ngi Burkina Abdul Fattah kooku mu tattale ma ci yooni torikatu Tidjani bon ma gëstu gëstu gëstu ci téeri torika yi bon bu ma am yaqiin daal torikatu Tidjane macha allah doy na ma. après ma jël torikati tijaan ci benn sët Ahmada Tijaani Chérif kooku moom ma jox torikatu tijaan kooku Chérif kees pecc la. mooy sëtu sëtu Maulana Cheikh. Euh, Ahmada Tijaani Abul Abbas moo ma jox torika Cheikh mais ginnaaw boobu bi ma nekk ci torika bi mais ba léegi am na li ma bëgg maa ngi gistu maa ngi ci kursi lazim wajifa hadratu juma. mais damay tawassul ci turu Cheikhu Tidiane damay def istikaar ñaan yàlla pour yàlla tettal ma ci yoon boo xam ni dinaa am yàlla ci boppam mais ñaari ñaar ñaari yoon laa tànn benn yoon bi mooy Cheikhna Amahullah Mali tubaab yi yóbbu nañ ko 1942 tubaab yi ñoo ko jàpp yóbbu ko mm. dellootul moom daanaka torikatu tijaan moo gën a am doole Mali mais ñooy moo moo gën a am doole ci torikatu tijaan Mali mais ñooy jawhiratul kemal fukk ak benn li ñuy def mais du fukk ak ñaar ma ñaan yàlla fekkee yoonu boobu moom laa war a am yàlla yàlla moo reyanti ma ci foofu ou bien fekkee Cheikh Ibrahim parce que ñaari yoon boobu laa tànn fekkee Cheikh Ibrahim tamit yoon boobu moo gën a moo ma gën a arrangé pour am sama borom moo gën a yomb ci man mooy sama sababu yàlla moo reyante ma ci Cheikh Islam Ibrahima Niass toujours damay ñaan yàlla ci lii ma nekk ci ma nekk ci bu yàlla boole ma mu dugg mahabba Cheikh Ibrahima ci sama xol mooy bëgg Cheikh Ibrahima ñas ci sama xol ma nekk benn jour sama benn xart mu woo ma jour vendredi mu ne ma sëriñ bi yaa ngi kër gi mu ne waaw maa ngi kër gi mu ah dama bëgg dem ziara ñu ànd ma ne ko amu problème bi ma dem mu fekkee yàgg naa ko wax ma ne ko dama bëgg tarbiya tarbiya dugg na sama xol ba pare ma dem ci sëriñ bi mu jox ma askar tarbiya ma continuer tarbiya ma am tarbiya ma am fatu alhamdulilah ma continuer noonu eh, Cheikh Mouhamed Baba Lamine mooy sama sëriñ daanaka li ma am ci torika bi dox torika bi xam ci wax dëgg de Cheikh Mouhamed Lamine Cheikh Ibrahima Niass Baba Lamine moo ma xamal des fois sax damay tëdd ma gis Cheikh Baba Lamine mu tettali ma ci yoon ci biir gént nit mun na ñëw pour questionner ma ci benn question ma taxaw ma gis Baba Lamine mu wax ma mu ne lii mooy yoon bi mooy yoon bi lépp loo xam ne xam naa ci torika bi ci zawku ak mahabba ak taraax wax dëgg-dëgg Baba Lamine buntum laa ko amee. macha allah dégg nga Eh, ci buntu Maulana Cheikh Baba Lamine Niass mhm. eh, sa dajé ak Maulana Cheikh Baba Lamine Niass fan la won Sénégal Mali numu démé mhm. sama dajé ak Baba Lamine Niass eh, du Mali Sénégal la Sénégal la dajé daje mais balam ma am ak mom contact face à face Dan na dem ci kërëm gamu bo jot Medina Dan na dem mais bu ma dem ni sa nanguma tok ci bit ci ginaaw parce que xamna cofeel mahabba bi moom ma xëcc damay ñëw bu toog des fois ànd naa ak sama soxna bu ci kanam la toog moom ma jàkkaarloo ak moom mu fekkee intikaalu ma ci moom nekkuma ci moom mais mahabba bi mu ngi sama xol ma dem dem ba mu ñëw Dakar ma dem toujours damay dem ci moom wazifa hadara bi ba ma amee jot rek damay dem benn sama xarit moom mukaddam Baba la mu ngi tudd Oustaz Seydou Sall mu ngi Kër Massar ku baax la moo ma woo benn jour mu boole ma ak Baba moom la ñu xamante bi ñu dugg ci lool ñu nekk ci liggéey bi man ak Baba benn jour ci weeru koor vendredi ñu dem wazifa xadara juma foofu bi ñu pare xadara juma bi mu woo ma ak Oustaz Seydi Sall ak taawam Baye ak Ndiaye ak ñeneen ñeneen ñu dugg ci biir saal mu tëj bunt bi balaa boobu gënt naa gis Baba Lamine mu woo ma mu dugal ma ci biir saalam mu ne ma tey dina la ijaazal avant loolu. nga gënt Cheikh Baba Lamine. Mhm. dugal la ci saal. Mhm. di jox ijaaz. voilà mais. bi ma woo jour boobu ma dugg ci biir saal ma xalaat ah lii de néeg bi mosu naa ko gis baaba ma ijaasa ma ci mu fekk waxul ma dara de mu jég jégi mu ne ma yow dinaa la ijaasa ijaasa itlaaq tey ci même jour wallahi génte bi gisuma ko premier gis ak moom jour boobu la ma ijaasaal wallahi billahi mu ne tey dinaa la ijaasal ijaasa muy yoon Mouhamed biti mu dem jël ijaasa mu ñëw bindil ko sama tur mu boole ko ak quatorze ijaasa boo xam ne ci ci Cheikh Ibrahim Niass moo ko jox ijaasa la Baba Lamine quatorze ijaasa yëpp mu ngi fi incha allah dinaa leen wan quatorze boobu Cheikh Ibrahim moo ko moom dafa jël ijaza itlaaq ci kii mu jëlaat beneen ci keneen mu jëlaat beneen keneen bu quatorze ijaza itlaaq mu dajale yëpp jox Baba Lamine Baba Lamine jëlaat quatorze boobu tamit joxaat ma ci même jur boobu. macha allah. dégg mhm. bi ma pare ci lool ñu continuer euh, toujours ma ko bëgg a gis rek ma woo ko des fois ou ma dem fekk ko ci këram li ñu toog ni waxtaan ak moom mooy Zohiria. bi ma ñëw ci këram toujours mu ne ma Mohamed boo ñëwee fekk maa ngi tëj woo ma ubbe ngi wax ñëw naa boo waxee rek ma ubbi moo tax benn bokk nekk mu ngi tuddoo Moustapha Ndiaye Moustapha njaay moo ne mu ne ma yow daal sëriñ bi sa diggante ak sëriñ man xaw ma lan moo nekk seen diggante de mais yow sëriñ bi na la fonk na la de moom lu mu mel me boo ñëwee rek moom boo xamee ñëw nga dina ubbi bunt nga dugg waxtaan ak moom baaba li ma neex ci moom tamit baaba wax dëgg-dëgg nit yàlla la bépp problème boo ko indi wax ci moom rek di wax loo def loo bëgg def rek def ko ngir yàlla des fois damay ñëw ci moom ma ne baaba dama bëgg nga ñaanal ma sëriñ bi man it liggéey international laa bëgg def ci faydu bi Mali Côte d'Ivoire Burkina la Guinée Sénégal yooyu yëpp dem ci international bëgg naa ko liggéey faydu bi daal man liggéey ma nekkee kaadim faydu bi mu ne ma loo bëgg def rek defoo ngir yàlla boo def ngir yàlla rek di ngir riis. ci commencé ko woon commencé ma génne senegal fii. ma dem benn jour ma ne ko bëgg naa ñu commencé wajifa xadara juma ci sama kër Zawiya après mu ne ma. du dem ñoo dinaa la jox tur bi tay nga commencé mu ne daayiratu mutahabiina fillahi farhan nasur diw moom lañ tuddee sa xadara mooy sama xadara Baaw Lamine moo ma jóg tur bi. jour boobu maa ngi àndaal ak Xaasim. ñu continuer noonu ñu ñëw continuer suñu liggéey ci géejawaay am na ñu ñëw jël torika am na ñu tarbi bu ma déménager ñëw fii nii maa ngi am relation ak Baaw bi ma nekk ci relation ak moom mooy zohir zohir mais baatin bépp loo xam ne jaaxal na bu ma tëj damay gis Baba Lamine mu ñëw tettale ma ci benn isaara dama gis ma ànd ak moom ci France ci baatin ma ne ko baaba bëgg naa secret bi baay yor jox ko mukadam yi mag yi bëgg na nga jox ma ko baaba mu ne yor naa ko bu ma la fekk jox naa la boo ko liggéey boo ko gisul rek sama der ñu génn ki nga pont ko ci suuf comme li ñu pont der xar yi ci suuf boo gisul li nga bëgg mooy première ñu ngi ne terrasse ci kaw man ak moom ci France ci baatin mooy dixième équipe première baatin bi ma demaa demaa deuxième jour ma gis ñu ngi am benn xew comme benn gàmmu ma gis sëriñ bi ci oto ma ñëw taxaw ci buntu oto bi ma ne ko ah sëriñ bi pour pourtant nga ne ma sikir bàyyi yor jox mu gadam yi mag yi nga ne yor nga ko mais ba léegi yo joxoo ko de mu ne ma waa dinaa la jox ma la wax dinaa la jox mu yëgati trois cent cinquante kaalis mu joxuma ko kaalis pièce mm. mooy ma dem mooy deuxième baatin troisième baatin ma dem fekk benn saal mu toog man ne ko sëriñ ba léegi sama secret bi joxuma de mu ne maa la wax dinaa la jox dinaa la jox quatrième ci suñu village frontière Burkina foofu lu ñuy dajee benn tool man ak Baba Lamine ma ne ko ba léegi affaire bi joxuma ma ne dinaa la jox ma sol sama daal ma dem fekk ba këram zohiri boobu zohiri la bi mu moti kat ma dem ci këram bi ma dugg ci kër gi ma laaj ñu ne sëriñ bi mu ngi noppal ma xaarat bu ñu añ ba pare naa dugg bu ñu añ après ñu ñu ubbee bunt bi baaba muy recevoir ma ma ak moom man ko sëriñ bi ah dama gis de secret bàyyi bi mu yor daal nga ne yor nga ko nii naa demee nii naa demee nii naa demee quatre fois mhm. mu ne mbaa xam nga turu bi ma ne ko dee di xaw ma ko de mu jox ma benn secret du ma ko wax ci réseaux sociaux du ma ko wax mhm. boo baatin la sama dégg ak moom mu jox ma benn secret mu ne demal def ko juróom ñaar fan hadiya rasulullah sallallahu alayhi wasallam. ma dem ma commencé affaire bi septième jour ci je ci suba si ma ngi teddi ma gis Baba Lamine mo jël dossier bi jox mako mais ci kaw dossier bi mu ngi am oran rond la mo nekk ci kaw carton bi mais tur am ci ma mu mu ngi waji préparer dem mané bi ah 7 septième jour mais li la gis mu ne mbaa gis nga turu bi ma ne ko ah gis ma turu bi de mu ne baax na mu continuer liggéey bi mu dem Mauritanie après boobu un man man waxuma ko dara moom tamit ma dara ma dem Mali mhm. ma dem Mali bi ma dem Mali euh, bi may retourné waat def naa ba quelque daawa foofu ma jox nit yi wuri di torikatu tijaan après may retourné ma ñëw kon ginnaaw gi da dellu Mali di nga da dem Mali. waaw am ñoo soob foofu noonu. waaw voilà am na ñi ma daje foofu ma joxalin torika bi bi may retourné ñëw benn jour ma def sama azkar suba si bi ma pare ma tëddi tuuti ma gis Cheikh Ibrahima ñas mu ñëw baay bi mu ñëw mu ne ma Mouhamed ban turu ngi nigi liggéey ban ngi turu ngi liggéey mu fekk am na benn is moom laa doon lu wurdi jamono boobu ma ne kon turu nangam laa wurdi mu nopi mu ne wa baxna na ma ko bàyyi yow tur bi ngi yoron jog mu ga dami bëgg na nga jog mako ko mu ne ah mu commencé tu tu bu mu jeex ma ko ah sëriñ bi man mu ma japp ni ci sa bop ni mu ne wa xamna ko xay yow ne ko ah, japp mais sa sëriñ baba lamin bu ñëwee Dakar nga dem ci mom nga wako ko wak mu joxolako tur bi nangam la tuddu wallahi billahi barkal alquran que lépp loo xam ne damay wax ci pay bi il mu leer bëgguma benn tilim tilim lu leer rek laa bëgg indi kaam bi kaamil la incha allah lépp li ma lay wax dégg la baay mu ne ma tur bi nangam la tudd sa sëriñ boo ñëwee Dakar nga dem ci moom pour mu jox la ko maa ko wax xam na ko ma yeew ci suba ma woote jot ma Baba Lamine ma woo benn bokk néeg moo mu ne ma baaba dafa tukki dafa dem Gambie mu fekkee baay moom ma wax de mu ne sa sëriñ boo ñëwee mm-hmm. Dakar nga dem ci moom mu jox la ko mais man xaw ma sax tukki na waaw mm-hmm. ah, daal bàyyi lu ma wax daal alhamdulilah ma xaar mm-hmm. baaba ñëw mu ñëw Kaolack ma ma jot ko mu ne moom mu ngi Kaolack ma ne ko waa man dama laa soxla mais damay baaba ngi ñëw baaba bi mu ñëw ma sol sama daal ma dem fekk ko ko benn soxnaam mu ne kum dafa jël garab eh, lan moy sama tang manako ah man de ci baaba laa soxla actuellement mani man ak mom waaw après may retourné lendemain ma demat baba restaurant eh, restaurant ma ma toog ak mom ma expliquer ko ma ah serigne bi li ma gisoon ñeenti at yëpp bay dal ñewna na na ma léegi mi ak li la turu bi turu nangam la fu mu tëddi mu ngi tëddi ci ci ci ci sàmbarum ci kaw lalam fu mu tëdd ni rek mu commencé tar yëpp ba mu jeex ba wala min xoolu benn téeri fu ma ko wax ma ne baay mu ne ma ñëw ñu jox ma ko tuur bi nangam la tudd mu ne waaw wax na dëgg kay mu commencé tar ba mu jeex ma ne damay jël kayit pour ma bind ko mu ne déedéet woo ma sama doom nangam ma woo kooku mu ñëw bi mu ñëw mu won ko mu ne demal foofu fële mu tettale ko palaas mu dem jël secret bi indi ko bàyyi loxo bi mu bindi moom lay yëkkati jox ma ko bàyyi moo ko bind ci loxoom kenn bindu ko loxo bàyyi la bàyyi ci loxoom moom la la jox ma ko mu ne mu ngi nii ma jël ma ñëw liggéey ko ma ñëw ci liggéey bi saa bu ma dem ci baabaay rek ma wax mu ne nekk ci rek damay gis dee fois ma xaatar bàyyi ci boppam liggéey na ci lii ma nekk ci wuridi bi rek ma ma tëdd rek ma gis bàyyi mu ngi raxas loxom man tamit maa ngi raxas ñu ngi bokk benn benn lekk ci benn bool ñu lekk ma xam bàyyi di jaar na ci mu am yàkkiin ci man loolu jaar na sama diggante ak Baba Lamine Niass benn jour ma ñëw eh, loolu eh, incha allah beneen yoon dinañ ci dugg boobu parce que loolu dafa xóot sama diggante ak moom ci baatin waaw doo boobu dafa xóot daal du ma beneen yoon ñu bàyyi boobu beneen yoon Baba Lamine daal sama sëriñ la alhamdulilah ku baax la mosuman tettel ci lenn bu dul yàlla yàlla rek wallahi billahi mujj sama mujj sax du ma du ma wax dara ci Baba Lamine damay ñëw rek ziar ko jox ko ñaanal ma sëriñ bi bu ma amee soxla sax du ma ko wax sama xol laa ko fas jeex na boo ko ñaanal mu nangu alhamdulilah bii mooy sama diggante ak Baba Lamine incha allah si say biiri wax mhm. nee nga sàkku nga ci sëriñ bi mu ñaanal la nga mhm. liggéey international waxuma national mais international mhm. mu mel ni liggéey boobu noonu li nga doon ñaan ci sëriñ bi may na la ko dëgg la alhamdulilah eh, international liggéey bi sama déggante ak Baba Lamine pour mu ñaanal ma ci ñaanal na ma alhamdulilah gis naa résultat bi parce que bi ma ne fii laa commencé liggéey international avant ma génn sax ci WhatsApp bi ma nekk ci waxtaan ci whatsapp ci wàllu tasawuf ci wàllu xam yàlla am na ñu bëri intikaal ci sama loxo ñoo xam sa mosuma leen gis dañuy obligé lijjante sama numéro fekkee am nañ vocal bi kan moo waxtaan waxtaan bi di ngay lijjante boo jot sama numéro woo ma mu ne waxtaan bi yaa ko def voilà fekkee waxtaan boobu maa ko def mu ne moom de bëgg na ñëw ci man pour mu mat tarbiyal ko mu fekk ñooy nit la ñoo xam ne ñu ngi dund ci torika bi euh, bokk na benn jour am na benn sama taal bi ci Gabon 99 la jëli torika mais mu ngi nekk ci faydu bi ne amul fatu bi mu dégg sama waxtaan tafsirkat la Burkina bi la mais day tafsir alquran ci group mais mu jël ma ci suuf nank mu ne sëriñ bi li ñu wax ni ci maarifa man loolu rek laa wér ban téere ban téere mooy wax ma ne ko bii du téere téere hadratu ilaahiya la boo tarbiya nga xam ko mu ne ma ah lan laa war a def pour jot ko ma ne ko di ngeen ñoom ma jox la tarbi askar tarbi ma woo sëriñ bi mu ne ma jox ko parce que am nga ndigal international foo ko jox rek mu am fatu Baba Lamine mu wax ma lool mu fekkee ñett nit la jour boobu ñu soxla torika bi et bi mais distance bi bëgg ma leen jox mooy ki nekk ci Gabon ak kenn mu ngi Côte mu ngi tudd Idriss Traoré moom tamit dafa jàng arab bu dem pays araab yi am diplôme dello ci Maroc moo nekki foofu tamit jànga imam pour loi imam ku war a jiite loi pour nga jàng ko pour nga génn ci sa diplom après nit ñu tànn la mu dem jàng jàng boobu ci Maroc bu mu am diplôme Zubair mu ijaazal ko mais bi mu dégg sama waxtaan mu ne ma man lii laa soxla ma ne ko lii de pour nga am ko il faut nga nekk taalibi Baay mu ne ma moom d'accord na mais dafa am madrasa Côte d'Ivoire day jàngale mu ne école ba tëjure damay ñëw ma ne ko amul benn problème ak keneen koo xam ne moom tamit ci benn taalibe Cheikh na Maawu la Côte kooku tamit sëriñ la même même ci fay non du tout faydu ci Cheikh na la ah, mais bi ma dégg ci sama waxtaan ci faydu bi moom tamit bëgg ñëw ci sama côté ma ne ko yéen yëpp di nga war a ñëw mhm. mais bokkuñu groupe kii day jël ma woo ma keneen tam woo ma kenn xamaan kenn xamoo sa morom. léegi ma wax baaba baaba mu ne joxo ñooñ ñëpp dina am fatu après sa envoyé ma ijaazam mu ne man soxloo ma ijaaza bi man li ma soxla mooy xa mooy xam yàlla parce que kéeti bi no déedéet takkul ma dugg ci torika bi am yàlla bi moo tax ma dugg ci torika bi am nga bàyyi tamit dafa wax mhm. ci benn waxam boo xam ne ku nekk taalibin ku nekk war nga ci góor góor ci bu baax Baay yombol na ci taalibim yëpp mu ne asku rabbi laysa sirran aqilan waskarti ba i uniilu fanaa mu ne man Baay maa ngi sant yàlla bu baax sama secret du jigéen ko koo xam ne du am doom sama secret ku ñoo jël rek nga wëseen nga am doom doom boobu mooy lan mooy maarifatu billah parce que sama xale yoo xam ne ñoo gën a daw ci taalibi sax am nañ fatu ci man am nañ fatu ci pay yàlla xam nga baay wax na lool ma ne ko il faut ngi ñëw dugg ci pays ya ci faydu bi kooku tamit jël wéradi ci sama loxo mooy Idriss Traoré. te origine fan la origine. moom origine ivoirien la. gabonais bi moom origine burkinabé la. ñoo ñëpp ma jox leen askar tarbiya. Idrissa dem bu am fatoo bi mu am fatoo mu ne ma ah sëriñ bi man de xaw mosuma xalaat lii mosu na am mu ngi dund ba léegi ci kaw suuf. mu fekk gisantuñu de ci distance paala am sikin bu weex taal léegi bi mu defu lool mu ne ma sëriñ man ngay alhamdulilah maa ngi sant yàlla li ma bëggoon mooy lii ma ne ko baax na lii mooy fay parce que yàlla mu ne fay fa innama tuwalu fa sama wajhillah kenn mënoo ko xam tàngeen ñu ñëwul ci bàyyi parce man bala ma ñëw ci bàyyi jàng na aaya bi foo jubal rek nga xam daal yàlla mu ngi foofu mais est-ce que xam nga lan la nekk foofu il faut nga xam ko alquran la bépp loo xam ne dinañ ko wax il faut mu am dalil yàlla moo wax nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla moo gën a jigi doomu aadama ci xolom ëpp ci xolom sax ci buum xolom loolu tamit mënooy xam mukk tànke ñëwul ci bàyyi alquran la yàlla mu ne wa huwa maakum ayna ma kuntum yàlla moo nekk ci ñun fu ñu tool yàlla mu nga ànd ak ñun mais pourtant yàlla kenn rek la mais sëriñ bi jàngale li yëpp ma ne ko gis nga li yëpp aaya bi ma ne ma man nga xam naa ko mais munu ma ko xàmme dëgg-dëgg mais jàng naa ko mais bi mu tarbiya mu ne lii yëpp xam naa ko moo ma boole ak i Idriss ma tarbiya ko ci international des fois sax day jox cours ci jaamiatu madinatu munawara mooy université madina sama dem janvier passé dem naa Côte d'Ivoire ñun ñoo doon wajifa jamono bu nekk xadara ak wasifa chaque jour man ak moom ak ñu ma àndal moom benn jour teewul ci wasifa bi mu ne ma sëriñ bi boo gisi teew ma démb jaamiatu madinatu munawwara mooy université madina makka am na benn concours foofu am na élèves yi foofu man maa leen jox cours ci distance mais gis nga mais xam-xam lii yëpp terew dafa intikal ñoo ci bàyyi pour mu am faydu li mu xam foofu xamu amul ci téere bi mooy Idriss parce que gars yi dañuy xalaat leneen loo xam ne ku topp téere mënul a xamal yàlla wax naa sama jaar jaar balaa baay parce que borom xam-xam ñu ne euh, lay safi kudd bi wala dafataruli ilimi innama li ilimu fi sudur rijaali kullu man yatlubu uluman faridan duna cheikhi fa inahu fi dalaali xam-xam du téere nekkul ci téere bi mais dënn góor yi yàlla foofu la nekk ku bëgg sàkku xam-xam jokkul benn sëriñ mu ne yàng ngi nekk réer bu mag lii boole na ma ci international Matar bi Idriss keneen ki tamit noonu la bi ma jóge fi bala ma jóge fi tamit am na ñeneen ci côté Libéria frontière Libéria groupe lañ ñooñ ñëpp intikaal ci sama loxo jël torika ci sama loxo pour ma tarbiyu leen bi ma jóge fi dem Madame Abobo amna ñu Kumas, Madame ma c'est la même chose Madame Adjeme, c'est la même chose yooyu bari jël nañ amna dëkk xam sa wa liste li ñu jël liste ñu pour ma ensemble ci waxtaan mhm. après après wajifa Bima waxtaan 30 minutes Ñoy ñëpp dañ ñoo jox seen doy na ci yow la ñu ñu jël liste ñu bindi ba mu jeex bi ñu bindi ma xool seen tur ma joxali ñooñ ñëpp ndigal macha allah Cheikh Mouhamed Traoré ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax euh, ci waxtaan bu neex bu am solo bu nga xamante ne sekk ko sa sëriñ si buntu sa buntu si maulana cheikh ibrahima niass muy cheikh baba borom xal bu neex bi borom xal bu rafet bi ñu koy ndokkel bu baax sha allah di la ndokkel ñu ngi jangé ci ki bi ne mbeugël ak dëggu doomu moy yobut nit ndax ni ni man man bok ni ma ci jangé modi di nit ki bo bëggé dara dang gor gorlu ta nga dëggu si mo la yóbbu fi ma sha allah euh, benen question buñ ci tek rek mhm. modi di liggéey ci faydu di zahir mhm. di mhm. euh, man laa ci lool neex na ma trop mhm. euh, sama liggéey ci faydu bi côté baatin ak i zahir alhamdulilah am na lu ñu waxtaan tuuti ci zahir baatin ci côté baatin mooy sama diggante ak sama mbokku taalibe jinne yi tamit jinne yi am taalibe dama am taalibe jinne ah dama am taal bi jine bépp loo xam ko wax dal mu leer bi alquran la inshallah do du affaire caaxaan bo xamne dina ci dugg loolu soxlo mako damay wax pour ndiri bay rek mhm. ni am jot ak taal bi jine yi léegi eh, taal bi jine yàgg nañ and depuis ma nek ci géej mais jamma ma jine de duma tur deret duma def sow duma def lenen man sans salatul fatiha la yor li and ak jine yeb am na jine boo xam ne daje naa ak moom ci eh, géejiwaay mu ne ma moom papam taalibe Cheikh Ahmada Tidiane la woon parce que am na am na ñoo xam ne sax mun nañ jaagale est-ce que jinne tamit mun nañ ànd ak nit waaw jinne ànd na ak yonente mu tuubu soixante mille personnes ci benn suba ci côté fa boo yàlla wàcc benn soir alquran suratul jinni qul uhiya ilayya annahu astama'a nafar min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba loolu alquran la léegi jinne ànd na ak Cheikh tijan ek eh, yonente Cheikh Tidiane tamit am na jinne ànd ak moom Cheikh Ibrahima tamit am na jinne ànd ak moom mais du question di ñuy jaam jinne déedéet dañuy ànd ak ñoom pour jaamu yàlla moo ma boole ak sama bos yi premier jinne bi mu ne ma papam ak Cheikh Tidiane moo doon àndewoon Cheikh Tidiane mu ne ko cheikh ibrahim dina ñëw bu ñew fekkee fek na la dundu fekkeel ngi andak mom wala fek sa dundu tamé fekkeel sa jabot andak cheikh ibrahim yes cheikh Tidiane Abul Abbas moko wax dina mo manatal de wallahi billahi bu mu def lol mo ne ma sama kër toujours mom fofu lay ñëw waxtaan yow sa kër sama kër mom lay ñëw toujours waxtaan mom talibé parce que lan moo tam ma dajaak moom am na benn waa ji jinne moo ko daanal ñu yóbbu ko eh, hôpital ñu woo ma ci une heure une heure du matin ma dem fekke kii bi mu ne ko eh, mu ne ma médecin bi mu ne ma moom pareegul ma ne ko waa continuer boo paree après nga woo ma dem toog ci biti ñu pigiri ko pour mu nelaw munu munu nelaw mu pigiri pigiri pigiri munu après mu woo ma ma ñëw ma jël sama loxo teg ci boppam ma commencé ra mu calmer médecin bi ñëw ko xool mu ne calmé na mu ne waaw calmé na mu ne depuis mu ngi fi ba une heure wu léegi calmé na mu ne bii du suñu liggéey yóbbu leen ko. bi ma yóbbu ji ma mu ne ma moom dafa ànd ak man pour dimbal ma ci liggéey bi moo ma boole ak boole ma ak jinne boobu mu ne Cheikh Ibrahima Niass moo ko jox askar tarbi ak wuri di tijaani ci Makka dafa daje ak Cheikh Ibrahima moom ci boppam moo ma nattale ci loolu ma continué ak loolu ci géejuwaay ba ma ñëw fii bi ma ñëw fi am na jinne yu bëri yoo xam ne tuubu naa leen fii ci janvier passé bële. fii Tiwaawan ci Tiwaawan Pël fii. jinne bi yor fii yëpp commencé boo euh, place Malika. Mhm. boo fële quartier bi ñu fële nu mu tudd am na benn suqaabeeg mhm. yooyu yëpp moo ko yilif jinne boobu mais du ma leen du ma ko tudd chrétien la woon ma daje moom mu ne du tuub ma nekk ak moom nekk moom ba mu nangu mu tuub ci sama loxo ma jokkoo tarbiya ma jokkoo azkar tarika tijaani mu tarbi ma ijaazal ko moom mu nga dam la fii waaw mu la fii mu ne ma ma ne ko il faut sa doom yi tuub mu ne ma ah man de aw ma pege pour sama doom yi tuub mais ma ne ko taal sa loxo ma ñaanal la pour sa doom mu munu nangu mu taal mu ñu jàng solatul fatiha bi ñaan ma ne ko demal woo sa doom yi ñëw bi ko wax noonu rek doom yi mu dem woo kenn ki moom mu ñëw mu ngi tudd Muhammad mais avant boobu du Mouhamed maa ko tudd Mouhamed voilà mu ñëw mu ne ma sama kilifa mu ngi fi mënuma tuub il faut moom mu tuub moo ne ko kooku moy kan mooy mu ne sama taw papa comme sama papa tuub na wor nañ génn na ci ñun mhm. moom du suñu kilifa mais sama mag kër gi mooy suñu kilifa ma ko demal woo mu ñëw mu dem woo kooku mu ñëw ma woo ak moom mu ma ah man de sama yoon nekku ci seen sama rakk yi seen tuub mais man daal du ma tuub moom du tuub moom mu ne du ma ko amul problème ma tuub rak boobu ma tudd ko Mouhamed ak benn rakam bu jigéen ma tudd ko Fatmatu Zahara ma tuubal ko ñoo ñëpp nekk taalibe Baay mhm. ñu ànd ak seen papa bi ma dem Mali ma ñëw mhm. ma ñëw fekkee ki bañ tuubu tamit ñëw na mu tuub soxnoon jinne boobu tamit mu gadam boobu moom tamit tuubu na. maam soxna ko tuubal. waaw dama ko tuubal mais damay gis baatin. damay gis baatin ma bu ma tëdd damay dem seen monde. damay dem si moom du ma tuubu leen. waaw ah, damay dem ma tuubu leen. mais seen baatin tamit du ma ci expliquer lu bëri. <laughs> waaw ay ñamal nit rek voilà dégg nga ma tuubu soxnaam. léegi ma bàyyi ma pare ci lool. Mhm. am na benn ndaw si moom dafa am problème feebar def na bu quatre ans mënu doog parta mu paralysé. Hmm. ñu boole ma ak moom benn ngoon rek ma xëccu jinne mu ñëw ma wax ak moom mu ne moom moo nekk ci kàngam ma ne ko il faut nga génn. moom moo téye woon tànk ko. waaw moo téye woon tàngam mu yóbbu ñu yóbbu ko fu nekk dëkk séeréer yi fu nekk yóbbu nañ ko. mais bi mu ñëw benn 30 minutes fekk na kii mu mm. ngi toog sax jour boobu mu ngi mu ngi foofu. ma tuubul ko ma ne ko génn ci mu ne waaw mu ne dina génn ma ne ko tuubul mu tuubul ma woon ko charte torikatu tijaan ma ne forcément la de mais boo nangu mu ne waa nangu naa. ma ne ko tarika faydu bi tamit mu ne nangu naa ma jox ko lépp ma tudd ko Cheikh Ibrahima kooku eh, Sukaabel foofu la dëkk kooku ma tuubul kooku tamit. Amna na keneen tamit boo xam ne maa ko mhm. ma tuddu ko mohammed bo moy sama digënté ak fi ci international ji tamé barkat dembo ci dimanche passé mhm. fekk na ki mu ngi foofu tuubu na benn jinne kilifa bu mag jif la jif biñu paré pare wajifa ko tuubu mu dugg Pakistan Pakistan la joggé six jabar la yor Wa huit dom mu né jif la mhm. premier jour bi mako japp fi dafa lakk juif ma jinne bi juif la waa abaran yàlla lakk jour boobu mais bi mu ñëw mu ne ma waa man maa ñëwoon keroog ma ne ko il faut nga tuub mu ne waa naa mu tuubul mu jël faydu bi mu jël askar tarbiya ma ijaazal ko ma ne ko demal Pakistan yow tamit ngi def daawa foofu pour tarbiya nit yi jinne jëm ci yàlla boobu dimanche passé rek la boobu yaagul bi ma dem Mali mhm. am na jinne ñoo xam tamit eh, tuub na leen foofu kenn ki ma tudd ko eh, Ismaïl kenn Haruna mais Ismaïl tuub naa ko ma ijaazal ko moom frontière Burkina lay liggéey moom tamit mu def daawa foofu ak i mbokkam jinne yi bi ma jóg dem Côte am na jinne boo xam tamit daje na ak moom foofu mm-hmm. kenn ki mu ngi tudd Mouhamed moom Ivoirien la ma woo kenn tamit Burkina la jóge mu ngi tudd Jaabir kooku tamit ma tuub ñoo ñëpp mm-hmm. bi ma jógee foofu ñëw ba ma ko encore retourné am na kenn koo xam ne na ak moom moom Guinée lay ci Sikiri benn dégg mu ngi tuddu Sikiri mais kooku yéeféer yéeféer la du juif du chrétien bi ma ñëw ma xej ko ma wax ak moom mu ne moom yéeféer la ma ko il faut ngi tu mu ne waa nangu mu dug ci islam mu jël tariqa tidiane mu jël ci faydu bi encore bi mu jël faydu bi ma tudd ko Souleymane. Souleymane. Mhm. dégg parce que moom yeefir la woon. mais jigéen bi mu nekkoon moo ko tere am doom. mu ne ma moom moo ko tere am doom. moom ah, moo tere am. kooku mhm. doom voilà def naa dix ans ou bien neuf ans amu doom. wax nañ ko lu nekk. mu ne dafa jël comprimé dafa di la mais jinne bi mu ne ma jour boobu jëkkër mu ngi toog mu ne man maa yàqu affaire doom du ko am. ki nekk ci frontière Burkina cinq ans léegi ndaw si bi mu nekkoon cinq ans amu doom ñu ngi ko préparé sax pour yónni ma fii nii Sénégal pour ma faj ko mais bi ma delloo ma dem Mali ñu dégg ñëw naay rek ñu gaawoon indi ma bala ma dem Côte d'Ivoire ci benn ngoon laa génne ci moom ma tuubul ko mu ne ma waa dégg la moo ko tere am doom mais léegi actuellement nii dafa ëmb jëkkëram dafa ko yónni ci village parce que jinne bi génn na moom jinne ñooñu yëpp dañuy ñëw xadara fii. te. dañuy ñëw xadara fii xadara fii. chaque xadara ñëw chaque wajifa dañuy ñëw. kerew sax am na kii am na benn sama taalibe am fatu. Mhm. jinne yi dañu ko lool mais dina ko dina <laughs> jinne bi ñu ko sonal parce que yow mun nga xam si dara. dëgg la parce que xam naa. ndeysaan loolu yëpp seede naa ko fii. ndax fii dëkk ak yéen. gis. Mhm. ni ngeen allah. Mhm. boobu. jinne boobu dafa ko sonal lool. ndeysaan ma dem Kaolack. Mhm. ci weer passé ziara baay bi ma nekk ci oto bi ci tawsaan maa ngi ñëw maa ngi def sama laazim. Mhm. ma gis jinne bi mu ngi yéeg yéeg ni mu set ci bopp ni mu xool ma nii. muy yerlu ah maa ngi ci biir oto bi <laughs> ma ne ko yow di nga ñëw tuub bàyyi rek ma naa ko di <laughs> bi ma fii ci jeudi uh-huh. jour la tombé ma ne xale yi ma ne jinne diw de mhm. gis naa ko ci yoon Kaolack mu ngi ma yónni ni ci boppam ma ne ko yow di nga ñëw tu maa ngi la xaar lendemain mu nekkee vendredi ñu xadara kooku am fatu bi mu am fatu jinne bi mu ñëw mu ne moom dafa ñëw tuub ma ne ko ah, xam nga wax naa la dimb da ngay tuub <laughs> mu tuub mu jël torikam mu jël tarbi mais lii yëpp du ma leen jox a guru de il faut ñu bàyyi si xel bu baax baa yoroo turu jinne mm. ñun yoroo turu jinne turu yàlla rek li ñu yor wa maa xalaqtul jinne wala insa illa liyabudun jinne li ñu soxla yàlla jinne tamit noonu li ñu soxla yàlla am na benn jinne bi ma ko tuubal dafa jooy jooy mu ne ah sëriñ bi yow defar nga ma wallahi yow defar nga ma sama sama xol dafa tooy parce que man dafa dama ko lu ban rek mais bi ma tuub sama xol dafa leer nañ jàmm yàlla rek la ay te jamono bi bi ma ñëw ne def na ñaar groupe jóge Mali jinne ñooy ma fi ci kër gi fii dégg nga ñi xam baay nit boo ko ku bëgg ngi ñëw ci baay mhm. bu ñëwul tamit jinne ñu ngi ñëw ci baay parce que baay loolu la wax mhm. diine bi pour mu yëgati mhm. il faut nga ñëw ci baay de parce que baay mu ne wa bii yar faw jawruli azim wa innahu bi fay di yanaalu diinu rafi li waa in fa man shaa yaati kubayla mamaatihi wa man shaa naawaahu ka ahli shakkaa baay mu ne ku mu neex nga ñëw de bala ngi dee bu la neex tamit sorol boo sor ci mani rek nga xam yow ñàkk teget la yow du tege yow du tege parce que diine bi ci sama faydu yi rek la mënu yëgati darapum ci faydu bi moom yi rek moo mënu yëgati diine darapu Cheikh Ibrahima Niass moo wax loolu gis nga diine bu ñu ñëw bu ñu tuub li ñu xam ci baay lu ñu bëgg baay am na benn soxnaam diine moo ko envoyé ci téléphone photo baay waaw waaw que dafa toog topp kale bi photo bi mu jékki-jékki mu fekk mu gis ko ci Instagram mais xam nga kan moo ko envoyé photo bi. mais bi bi moo ko dugg bi moo dugg ndaw si mu ngi dund ak moom mu sonal ko lool yàqal ko lu bëri yàqal ci cinq doom boo xam ne war na ko am mu yàqu mais bi ma dajee ak moom jinne bi mu ne ma waaw moom moo ko def ma tuubul ko mu ne waaw man kay yàgg naa bëgg bàyyi saa gisoo photo bàyyi ci kii bi. ci téléphone ci téléphone ndaw si mu ne laaj ko fan la ko jëlee maa ko envoyé ci photo kii bi mais bi mu tuub mu ne ma ndaw si dina am doom parce que nekk naa sama sataal bi ba pare loo ma waxee dinaa ko def ñu ñu ànd a jàmm yàlla du ma tooñ benn doomu aadama encore. mu tuub bi mu tuub ndaw si am na doom jamono bi am na doom. Oh. am na ku tuub fii encore. Mm-hmm. boobu jour kii am fatoo fii. Mm-hmm. ndaw si bi mu ñëw tuub jinne kooku tamit mu ñëw jour boobu. bi mu ñëw góor la ma tuubul ko ma tudd ko ma tuddal ko Cheikh Ibrahim kooku tamit moom tamit mu ngi ko yàqal ndaw ci lu bëri oh. kooku tamit mu ne moom à partir tam moom génn na ci ma ne ko mbaa am nga xaalis pour nga dem jëndee kurus mu ne waa am na xaalis cinq mille laa denc jinne bi moom ma wax la mu ne cinq cinq mille laa denc <laughs> ma ne ko waa cinq mille boobu bul ko lekk de demee jënd kurus ngi def sa laazim ak wajifa ak xadratu jumaa mu ne waa dinaa ko def ñooñu ñëpp def nañ ko sama relation ak jinne yi mhm. jinne du leneen jinne jaam jaam yàlla la comme ñun mais ñoo xam ne mun nañ def leneen wax ma loolu de mais sama bos laa xam parce que ñun tamit suñu famille euh, mbir jinne bokk na seen liggéey mais ñun duñu tuur ah, ah bokk leen si nga xamante ne dañuy tuur ay deret ay soow ah, fii nii nii non non yàlla rek ngay garab jeex na alquran tamit boo dem ci suñ dëkk mhm. ñu fekk kale vingt ans wàccul alquran barul 33 villages ak 54 amoo la yooyu yëpp boo dem alxuraan yi rek la ñu xam bu nekk jaamkat xërëm sax doo am soxna pour ñu may la ko duñu nangu ñun ci islaam la ñu judd moom la ñu màgg tamit jàngaal alxuraan liggéey suñu secret yëpp alxuraan la du leneen loolu tamit boo gis ma def lii tamit parce que lii bokk na si suñ coosaan mais madadu bàyyi rek laa yaakaar ci bi iznillahi taala parce que bàyyi boo ñëwee ci moom dara du la jom loolu jaaxal rek bàyyi dina ci ànd boo àndara mu yomb ci sa loxo du sama doole du leneen nde fii yëpp ba léegi ni fi ñu toog ni jine ñu ngi fi ñu ngi déggal émission bi am nañ xaw am xam nañ keneen am nañ am na Umar Umar sax am nañ ko waaw léegi loolu il faut taalibi bàyyi mu téye kurus boo téye kurus jine mënu la yàqu parce que leer yàlla ba dugg rek jinne du am place ci yow. dootul am si yow mm. il faut nga góor taalibi baay waroo tayal. dëgg la taalibi baay baay ku bëgg mooy kuy góor góor mm-hmm. ku dëggu tame. Mm-hmm. parce que baay dafa wa wasana ilahi nafsi dahran mm-hmm. la ura umilu ila ma laysa fi shari'in jaiza bi yumina rasulullahi bi wa murshidi bi sardi lahu al amdahu kat sirtu faiza baay loolu la wax. mu man man Cheikh Ibrahima Niass dem ci loo xam ne sariya daganoo ko ci lan mu ne ci barke rasulullahi salaa sallam li ma tagg ci moom yàlla dafa ma sàmm bàyyi loolu la wax taal bi bàyyi dafa war a góorgóor ci sariya ak baatin parce que imam maliki lool moom tamit loolu la wax wa man tafakkaha wa lam tasawwafa ta tafassaka wa man tasawwafa wa lam tafakkaha faqad tasandaka wa man jamaa baynahuma faqad tahakkaka ku jàng sariya kese mun nga nekk yàqukat ku nekk sufiyaa ngi kese nangul topp sariya mu ne mu ne kooku zindik la ku boole ñaari kooku moo nekk ci dëgg moo tax taalibi Baay boo ko gis rek kurusum ak sariyam dafa ko fonk bay tami loolu na fonk jinne tamit loolu lay fonk dama daje ak benn jinne mu ne ma a ah, kii de wax naa ko mu mu saraxa soow wax naa ko mu saraxa guro ma ne ko kenn du saraxal la guro guro kenn du la jox mm. soow kenn du la jox soow booy ñëw da ngay ànd ak ñun yàlla ta ñu jàmm yàlla bu d' accord alhamdulilah fekk d' accord loolu tamit a ah, ñu xool li ñu war a def mu ne waa sëriñ bi d' accord na soxaloo ma guro soxaloo ma soow soxaloo ma leneen soxal ma ginaar tuub na mu nangu mu tuub kooku tamit yàkkal nañ ko trois ans xale bi mënoo jàng taxawaloo rek taxawaloo rek la nekk bu mu am benn doom ci Côte d'Ivoire. jigéen la Côte d'Ivoire jigéen la Côte d'Ivoire kooku Côte la yóbbu nañ ko fu nekk. mais bi ma dem benn goon la ñu pare wajifa ma ne ko kaay mu ñëw ma ko toogal mu toog ma teg sama loxo ci boppam ma woo jinne bi mu ñëw ci kanam ñëpp ma wax ak moom mu ne waa moom moo moo moo ko toppoon moo ko yàqal lu bëri ma ne ko léegi da ngay génn ci ñun ma ne waa d'accord na foofu la pare ba léegi wéri naan du daan du dara joxuma ko benn safara safara pour sangu joxuma ko benn garab tane moom wér na mais am na ñoo am ne il faut ñu jogaleen mais mu nekk ci yoon yàlla man loolu laa dund ci international jinne yi ak doomu aadama yi fekk am na laaj tamit ngi laaj balaa ma gën a sorwaat. man kay mu mel ni mu mel ni yow jinne yi nga gën a beral loxo ka nit yi daal jinne yi nga gën a beral loxo ah <laughs> léegi yow sa jëflanteeg ñoom. Hmm. ni ngay kiiwee ni nga ni nga expliqué. Hmm. dañ hmm. yomb. day mooy sa secret. <laughs> Ah, waa secret boobu daal man daal li ma jàpp daal secret daal secret bàyyi lay rek boobu secret bàyyi la parce que day day yomb. Eh, parce que ki tuub voilà secret yëpp bàyyi la madat bàyyi la rek man daal madat bàyyi la parce que bàyyi mosoon nañoo benn jour mu gis ma mu ne ma Mohamed góor-góor ci yéen laa tiitiru loolu la ma wax wallahi maanaam ngeen ñu ngeen que yéen la bàyyi parce que ñun ñun ñun ñooy loxo bàyyi ñun ñooy tàng baay jamono bi faydu ñun ñoo war a góor góorgóor yóbbu yóbbuñu ko fu nekk bàyyi ba def na lu mu war a def. parce que méngoro bi mu ma wax ni mhm. est-ce que Baye mën na toog ni ci Zouhairia waxa ak ñun mais baatina mu ngi toog ak ñun mhm. mais Zouhairia ñun ñoo war a liggéey parce que ñun ñooy loxo baay ñun ñooy tàng baay ñun ñooy bët baay góor-góor boobu ñun ñoo war a liggéey mhm. taalibe baay surtout mu kadam yi gëstu leen ci yoon baay parce que boo gis si réseaux sociaux des fois ngay gis benn mukaddam ñu ngi ko xeeb ñu ngi ko wax lu nekk mais mënoo tonton ci réponse rafet sax ci diine islam ci côté boobu loolu wax dëgg de man d'accord ma ci quoi. parce que Baye dafa bëgg Baye borom xam-xam la ci zahir ak baatin baay boole na yëpp yow booy la tànn tamit yow ngi nekk taalibe baay da nga war a góorgóor boo góorgóor jinne boo ko laal boo ko laal ñu sax di di di nangu gis nga jinne yu bëri du nangu ma waxtaan ak moom démb sax am na ku ñëw kii na ko. mais pour ma wax ak moom day day daw du ñangu. fekkee naa lu mel noonu bu ma wax ak moom rek. fekk na ko voilà jeex na tàkk parce que loolu moo gën a neex. parce que gis nga am na ñoo xam ne dañuy wax ah ñooy de dañuy wax ak jinne dañuy defar jinne mais kenn du mun a seede. dëgg la. sama sama diggante ak du ci néeg de ci bit laa ko def. Mhm. ci ci taalibe ci biir taalibe ñëpp seede ci. Mhm. loolu lu leer la. parce que du ñu nangu parce que yàlla def na ci man dara maa ngi sant yàlla du sama pege du du leneen dimbali yàlla la rek. parce que diine bu ma jàkkaarloo ak moom mat won ko diini islam rek day nangu. mooy dëgg. du bañ. Mhm. lu mu bañ bañ bañ bu ma wax ak moom rek di day mujj nangu moo tax benn diine mu ne bëgg ma daje ak yow. parce que yow daal <laughs> bépp jinne boo xam ne jàkkaar nga ak ja da nga jàkkaarloo ak ñooñ nangu nañ sa loxo man loolu laa bay parce que am na lu nekk ci yow boo waxee rek di ngay nangu mm. loolu moo tax damay bu jàkkaarloo ak moom rek day profité daw du nangu wax ak man mais loolu yëpp bi isnillahi taala ci madad Cheikh Islam Ibrahima Niass ci barke Baba Lamine parce que Baba Lamine moo ma ñaanal Baba Lamine moo ma ñaanal de wallahi gis nga waxande bi mu ngi fees daal ci secret bi yëpp secret la ci asrar mais dama ko tëj soxlawu ma ko li ma soxla mooy Baba li ma joxe moom laa dund tëju naa ko kii xam na si dara mhm. mais li ma yor mooy torika bi sama laazim sama wajifa azkar xususiya yi ma def ko ak sama déggante ak baabal li ma jox ma ma nekk ci pañ voilà nte ñun nte gis nga ñun mhm. ci xeet la Mali boo xam ne ñu ñoo tudd dafin xam nga dafin ci bambara mhm. mooy gémmiñ bu ñuul maanaam daa dafin xam nga lool benn benn point la deuxième tur bi daa xam nga yow xam nga daa daa bi ñu bindi ah mooy daa bu ñuul boobu ndox boobu moo tudd daa ci bambara encore fii mooy bu ñuul parce que sunu maam yi seen liggéey yëpp mooy ñaan nit yi ci alxuraan bindi alxuraan jàngale alxuraan ñaanal nit ci alxuraan bu nit yi sax dem tudd leen ñu ne ñii borom daa daa bu ñuul yi lay parce que mooy mooy suñu liggéey loo soxla boo feebar boo ñëwee ñu bindi la bu ndox bu ñuul ngi dem sangu bu kii rek nga ñu tudd mu ne ñi daa fiñ la borom daa fiñ boobu mooy suñu xeet boo dem Mali boo waxoon daafi ñeen ñëpp xam nañ xam-xam mooy seen liggéey boo dem na mooy seen liggéey Côte d'Ivoire parce que dafi bari na Burkina dafi na bari na Côte d'Ivoire bari na Mali mais Sénégal fii daal mhm. foofu laa amul dafi lu ma gis ñu te gis nga ndaw li ñu tudd ni yëpp mhm. ndaw mhm. bari na ci dafi trop ci ndaw yi ndaween yi voilà ñu sant ndaw waaw ndaween voilà boo topp seen culture dëgg-dëgg di am na lu mu war a feeñ mais duma ma ci dugg lool pour bokk <laughs> problème bi bokk ci loolu bokk ci émission bisimilah macha allah ñu ngi baax si ci si waxtaan bu am solo bi mm-hmm. sa diggante ak euh, jinne yi macha allah mm-hmm. ah mm-hmm. Euh, léegi lan lan nga mun a ñu ngi dem si mujjantalu émission bi ani lan ngay tëjee maam waxtaanu lu nga xamante bëgg nga ko yokk ci émission bi. dëgg la oui alhamdulilah loolu maa ngi sant yàlla parce que samay relation ak jinne yi lu ma wax mais am lu des mais duma ci gën a dama yemal fii doomu aadama yi ba léegi ni sama kër fii am na xalifa nekk fii am na xalifa xalifa yoo xam ci Mali ñu joxo leen ijaaza xalifa ñuy leen mu mu leen ñu joxo ci xalifa maqaama xilaafa mais amuñu fatu dañoo obligé jël billet ñu ñëw fekk ma fi tey tey tey nii am na ku ku ku ku mu toog nii mu ngi tarbiya bi amul amagul fatu. mooy ki ñu romb ki ñu romb foofu mu ngi tarbiya parce que amu amu fatu 30 mu ngi ci tariqa bi. mais bi ma xamaan bàyyi loolu yëpp mu topp ma pour tarbi am na ku jóge Côte d'Ivoire moom delloo na moom tamit yàgg na ci targa bi mais alhamdulilah moom am na fatu fatu bu leer la am fii mhm. moom tamit alhamdulilah moom ñibbi na am na keneen koo xam tamit moom ijaazal nañ ko def na quelques yu bëri ci Burkina mais am na fatu kii moom moom tamit mu ngi fi moom tamit birim borom mbir la loolu samay relation ak doomu aadama la comme émission bi mhm. euh, mu ngi waaj a jeex mhm. man daal lu ma bëgg yokku ci mhm. mooy ñu góorgóor ñu góorgóor bu baax maa ngi nuy ñëpp maa ngi nuy ñëpp ku mënu ñëw ci faydu bi ñëw liñ ci faydu bi parce que faydu bi du caaxaan faydu bi du mbir loo xam tamit euh, mbiri bàyyi kese la bi dafa intéressé ci jullit yëpp parce que fu faut xam yàlla xam yàlla mooy lépp xam yàlla loolu la ñu bëgg boobu mooy lubb-lubb bàyyi loolu li ñu jox joxuñu leneen de tawhid li ñu jox mhm. faskarti baa yi bari umim sirik bàyyi loolu la wax sama xale yoo xam ne moo gën a ndaw sax turum effacé na ci bokkaale ñun bokkaale ñu de tawhid li ñu ñaan yàlla yàlla tamit loolu la bëgg ci ñun moo tam ñu ànd ak bàyyi bàyyi tamit loolu rek li won ci ñun wonuñu ci leneen ku mënu ñëw ci sénégalais ñu international ñëw leen ci baye parce que baye yëkkat yàlla yëkkati nako ba pare kenn mënu ko wàcc parce que loolu la waxoon mu ne ñu ngi ma songu ñu ngi ma def lu nekk mais ñooñu xamuñu sama fatu mot na depuis ma nekk ci xay parce que loolu la wax qad tamma fatu inda mahdi wa qad annati jami rijalal gaybi tahta fama qataw fi sharqin wal garbi fadfadan illa maqta illa li shami shazai wa lim na waa indil yow ma ay ni Muhammad sarasiru wa iqal loolu béytu la boo xam ne bàyyi dafa wax mu ne ñoo xam ne ñu ngi man noonaal ñooy daal ñooy noppale seen bopp parce que man am naa sama fatu ba pare bàyyi mission la pour suñu suñu suñu intérêt la parce que dafa ñëw pour dimbali ñun rahmatan la pour ñun il faut ñu xam loolu ku topp bàyyi ñu gis leneen ne bàyyi waxul lool bàyyi daal jàmm rek la indi ci ñun jàmm yàlla rek la indi ci ñun ku nekk taalibe bàyyi bu amee fatu yokkul jàmm yàlla ngi xam sa fatu bi leerul parce que 50% cinquante pour cent ngi jaamu yàlla boo amee 100% parce que da ngay gën a bëgg yàlla da ngay bëgg yàlla mais taalibe Baay boo ko gis doo ko gis aadara doo gis wajifa doo ko gis moo yor kursi wuri bi déedéet fatoo bi des na kenn du kenn waroo werante loolu parce que da nga bëgg yàlla toujours loolu dal il faut ñu bàyyi si xel ci bu baax baax international ñëw leen nga nekk ci yoon tarbiyu ñu tarbiyu ñu xam yàlla parce que ku xamu yalla rek leer amu sa xol loolu il faut ñu xam ko parce que euh, xaadir wax nañ euh, benn cheikh xaadir mu ngi tudd cheikh Seydi Muxtaar Kunti mu ne fal anbiyaau wal awliyaau yarauuna allaha qabla kulli cheyin walsaalihuuna yarauuna allaha fi kulli cheyin walmuminuuna yarauuna allaha bada kulli cheyin kooku xaadir la xam nga gis yàlla boobu moo la njaaxale kii cadre la mu ne gis nga anbiya yi ak awliya yi ñooy di ñuy gis yàlla avant ñu gis dara man waxuma ko de Cheikh Sid Mokhtar Kunti moo ko wax mu ne soole yi ne ñi baax yi di ngay gis yàlla ci yëpp ci lépp muumin tamit di ngay gis yàlla ci ginnaaw lépp tamit loolu il faut ñu bàyyi si xel ci lool loolu Baye wax na ko lii mooy mbiri Baye yonente mu ne ولم أرى ولم أرى عند أروية ربي أحدا من كلكه حتى ظننت أن أهل السماوات والأرض كلهم قد ماتوا yonent moo ko wax mu bi ma jàkkaarloo ak sama borom ma gis ko jamono gis ma benn bindeef juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf bu ma dem ba kalaat sax ñun dund ñu nekk juróom yaar asamaan ak suuf yëpp dee nañ yonent moo ko wax benn boobu parce que gis yàlla moo leen kii ba il faut ñuy laal ci tuuti. ñu laal ci tuuti mm-hmm. léegi. Eh, kii mu ne abdullah bun abbas mu ne innama suxul xalqi an illahi tabaraka wa taala li tadbiri li anfusihim فلو أنهم تركوا لتدبير لأنفسهم وأخرجوا أنه لننظروا كلهم إلى الله إيانا Abdoulaye Ibn Abbas moo ko wax mu ne fekke doomu aadama seen tafal seen dugg génnee fekke lool bàyyi nañ ko ñu jubal ci yàlla direct pour saq yàlla kese mu ne ñëpp dinañ jàkkaarloo ak yàlla yàq satan Abdoulaye Ibn Abbas sahaaba la yonent ñu jàng xam nañ ko Aïcha mu ne yonente gisoo yàlla Abdullah ibn Abbas mu ne gis na yonente gis na yàlla borom xam-xam natt na nattal na ñu ne Aïcha lu mu wax ci mbirim néeg ci ya rasulullah dinañ ko nangu mais mbiri xam-xam Abdullah ibn Abbas li moom la ñuy jël moom moo wax li hadis kudus yàlla dafa wax yonente mu indi hadis bi mu ne man xaraja lii min kulli shay'in bi hijranihi bi kulli shay li kulli shay'in tajallaytu lahu fi kulli shay'in hatta yarani fi kulli shay'in mu ne ku génn ci lépp gàddaay pour man jëm ci man mu ne damay intikaali damay tajaliya ci lépp ba ma ba mu gis ma ci lépp yàlla moo ko wax fekk loolu sori na ñu dem ci Zabur Daawuda Zabur Daawuda yàlla mu ne foofu yaa bun aadama tawarra taarifuuni irji'i taraani fa abduni tajinni mu ne doomu aadama fekkeel delloo ginnaaw ngi xool sa bopp boo xool sa bopp rek di ma xam boo delloo rek ñëw ci man ñu gis ma taraani loolu la wax ci Zabur Daawda ci suura 28 suura boo dem foofu nga fokk foofu li yëpp gis yàlla la basira tamit mooy gis yàlla basira boobu tamit yëpp amuñu ko parce que loolu tamit yàlla yonente moo ko wax ci suuratu Yuusuf 108 aaya mu ne kul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basirati ana wa man tabaani wa subhanallah wa ma anna min al mushrikin boo dem ci suuratu Yuusuf 108 aaya nga fekk ko foofu mu ne lii mooy sama yoon damay woote nit yi dem ci yoonu boobu ak képp ku ma topp dem leen ci yoonu bi pour basira pour gis basira bu gis ko il faut nga gis ko loolu alxuraan la kenn mënu ko weddi mooy aaya alxuraan boo xam ni yàlla dafa wax eh, laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful kabir mu ne bët doo gis yàlla yàlla mooy gis bët waaw waaw yàlla mooy gis bët yàlla mooy gis yàlla tamit yàlla mooy gis yàlla tamit kenn mënoo gis yàlla yàlla mooy gis yàlla mais bu ñu passé loolu bu ñu dem ci ban aaya moo ci topp kad jaakum basairu min rabbikum fa man absar fal nafsihi wa man umiya fa alayha wa ma anna alaykum bi hafiz alquran la bépp suratul an'am yàlla ban ban aaya la ci topp mu ne ah bët du ma gis de man may gis bët mais basira bi ñëw na ku ma gis moo xam ku gumma tamit moom moo xam sama yoon nekku ci mais basira bi daal ñëw na loolu ay alquran la il faut ñu leeral borom xam-xam yi waxtaan bi waxuma ñu jàngul. ñuy dingal. dingal boobu. lii basira moo ma indi baay. basira bii gis nga waxuma waxu baay de ci alquran laa wax ak hadis yi yonent yi ak saxaaba yi ak zabur daawud loolu rek laa wax jamono bi nii yàlla mën a wattaba sabila man anaba iliya topp leen yoon boo xam ne dingay dellu seen bopp ci man. ñan moo munu delloo boppam ci yàlla ku dul aarif aarifu rek moo munu delloo boppam ci yàlla mais il faut nga am sëriñ ku munu ku bëgg góor-góor sa bopp julli ak naafla bi rek laa nekk mu ne kooku daal yaa ngi nekk sa bopp fatoo daal yombul de il faut nga am wasila yaa ayyuha allazina amanu ittaqullah wabtaqu ilayhi wasila wasila ñetti la bàyyi mu ne ñetti la benn wasila bi il faut nga am yonente wasila al kubra mooy yonente deuxième wasila bi mooy طريقة ترازم وسيلة بي موي عارف بالله الفن عمكو بو أميو عارف بالله جوك وسبب بول لي جنت لنن مو يوبلا سي الله مي سيرن بو خامني موغي لا اسبليكي تي مليار موغي لا اسبليكي تي والو ليك رك موغي لا سولي رافيت رك اتا سيغري اوتو رك كوكو بي سيرن سي بوبام رك اه بوبام رك بو فول باي كو دا فلا ناخ بو امي فول رك باي كو كولا تيتال سي الله موي سيرن سي يري يري كيسلا بي دو ماركي سيرن دي بي دال داماي ماسكي لونو توغ رك du sëriñ de sëriñ bi xol bi la. lu nekk ci xol bi mooy sëriñ. Mm-hmm. parce que am na ñenn yoo xam ne seen taalibe bu amee fatoo sax. Mm-hmm. mun nañ ut garab yoo xam ne sangu ko naan ko la fa lu ne mu ne parce que dafa dof mu fekkee du dof de. Mm-hmm. sëriñ bi moo dof parce que moo feebar. parce que taalibe boo wér yow feebar na <laughs> doo xam kii wér na. loolu mooy problème bi mais il faut sëriñ bi d' abord il faut moom mu wér ba pare. moom ba wér rek mun na yóbbu nit ci yàlla. Basira moo ma yóbbu ci baay. pour alhamdulilah damay sant yàlla. bi ma dem ci Mali ki ma tafsir alquran ma jàkkaarloo ak moom ñu waxtaan ci tuuti. moom mu ne ma ma wax ko benn aaya ma ne ko eh, sëriñ bi man daal am na aaya bi ma tafsiroon mais dëkku ma ko woon mais léegi laa ko dégg. mu ne ma boobu ban aaya la ma ne ko eh, alquran mu ne huwa al awal wal wa wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mu ne yàlla mooy première mooy deuxième mooy lu fin mooy lu nëbbu ma ah mais pourtant kul huwa allahu ahadun yàlla kenn rek la mais li ñent la ki nek premier du nek muju kul lu feeñ boobu du nobu manako ah li de deug mako mais leg la ko dégg mako expliquer ko mu ne ma serim bi xam nga lan la yow sama serim fi ni jamono bi mala tafsir mais yow yaay sama serim mais dama bëgg tarbiya sa loxo mais demal Sénégal boy retourner damay tarbiya sa loxo mais bima ñom mu gañ sama ginnaw bu len négliger ñëw len tarbiyu ku tarbiyu nga am fatu ku am fatu ah ah fanfiru ilallahi jami'an daw leen jëm ci yàlla ñun bàyyi tànn nañ boo sori bàyyi boole na la sa bopp boole na la boppam boo jege tamit bàyyi boole na la boppam parce que bàyyi bëgg na doomu aadama de moo tax mu ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barri barrahim ilahina mu ne man sama bëgg-bëgg ci umma yi mooy ma xatal leen yóbbu leen ci hadratu barrahim ilahina mooy sunu borom hadratu ilahiya umma yëpp sama bëgg-bëgg man baay mooy yóbbu leen ci yàlla loolu rek mooy sama bëgg-bëgg lan lan la ci teg mu ne wa taalam hal fil xalqi ahanna alayhim madda dahri min ni wal baidu kama danna mu ne man baay est ce que mosu gis ci ci eh, doomu aadama yi comme mel comme man baay tellement li ma leen bëgg li ma leen bëgg est ce que mosu nga gis ci doomu aadama yi comme man parce que dama jamono bu nekk sama bëgg ba mooy yóbbu nit ci yàlla ku sori ak ku jóge moo yem ci man man fan laa jóge ba frontière Burkina mais Baye boole na ma man ci kër Baye laa dund léegi. jeex na bi ma ñëw ci bàyyi rek fàtte naa lépp ci sëriñ boo xam ne ma dem ci kiw bi ma dem ci kii déedéet foofu la jeex bi ma ñëw Baye. sama xaatir bi doy na sëg ba yow ma la kii ma bëgg ma mu yokk rek loolu laa bëgg. mais respecté naa sëriñ yëpp. قادر يال ينين ينين ينين ير رسبت نالين مس با الشيخ إبرينيس دال موم موم سما كون الشيخ إبرينيس موم موم سما جيم موم موم سما زوهر موم موم سما باتين وخ دغ دي الحمد لله ديم واجي فاسا الشيخ إبرينيس نيو نافي كي كي كي هم نكو بنيو بارا وزيفا نيو ذكر نداو سبي ام فاتو باي دافا نيو ياكي زاتان مو يور مسول بن يربو مو تك ماندو بوخ mu ñëw démb démb tamit si wasifa ma xam Baye daal bëgg nañ ñu góorgóor ci bu baax man daal loolu laa bëgg ñun topp ñu Baye pour leneen de yàllaay rek mooy suñ càkkutéef ci moom moom rek la ñu yóbbu tamit parce que moom am na benn wax mu ne ka faytu sihaabi fi toriki anaa man daal sama taalibi daal doy naa doyul naa le parce que man jox naa la bu ñooñ doy ci yoon boo xam ne jafe na yombal naa ko jox sama taalibe yi kulluhum bi jazbin naa la mun a bépp bépp ñoo xam ne sama taalibi la yombal naa leen may jazbu la yóbbu la ci yàlla wala mu yàqu li li aqtaabi qabliya misilma li zal abdu min faydu yaruku sanaa benn kutub mosoo jiit bala man man man baay ma ñëw benn kutub mosoo ñëw ci kaw suuf man baay li ma def ni nga mos benn kutub mosoo ñëw ci kaw suuf loo xam ne mosu na ko def mosoo am sama faydu bi mais baay taalibeem yëpp wali yàlla la ولي يالا سا امنا ولي يالا يوم نام فاتو باسكو باي مون كل عارف ولي وليس كل ولي عارف ولي عارف ييب ولي لا مي ولي ييب دو عارف دي امنا امنا ولي يوم دو عارف دي مي ولي يالا لا مي عارف ييب ولي يالا لا باي لي لا جوك تي نون مي دو دو لنين نيت تامي بولا جوخ لو لو خامني موسو كان موسو لا جوخ il faut nga beug ko deug la bo gisi nar yi beug ko mhm. bambara yi beug ko mhm. moshi beug ko Eh, eh, joolaa bëgg ko bawleen bëgg ko séeréer bëgg ko olof bëgg ko du ah nga xam am na dara de sama yaay bàyyi rek la xam sama yaay mais pourtant moom mu ngi nekk ba fële mais boo wax Cheikh Ibrahima si xolam sedd ah mais mais boo wax leneen mais ah boobu mun nañ ko dégg ni mais wax dëgg dëgg ñëpp sëriñ la de mais wax dëgg bàyyi lu ma may kay mu musuma am ci kenn benn sëriñ bi ma dugg ci fay du tamit sëriñ bi ma nekkoon ci Mali mm-hmm. noonu bu nekk jubal na ko ci sama kaw bay nañ ma côté bu nekk seen taal bi bay na ma côté bu nekk mais ginnaw loolu yëpp mën na ko déedéet. man li ma nekk daal de jeex na. man da ñàkk faw faw ñu faw ñu diingat. incha allah wala loolu. wala xamuñu ko. bu ñu xamoon duñ diingat. jeex na loolu la. Euh, suñu question bu mujj moo di. Mhm. sa diggante ak international. Mhm. maam gis nañ ne yaa ngi def ay tournée yàggul. bi nga mhm. jógee tournée. naka nga koy dundee. ak mbokk taalibe yu nekk foofu noonu. waaye sama diggante ak international sama voyage bi wax dëgg dëgg gis naa soppe bu baax baax wallahi wallahi gis na yokkute bu mag bu mag laa gis parce que bi ma dem Bamako ñi mhm. ma ñu jëli torga ci man sax xaw ma ñaata ci jigéen ñi ak góor yi mhm. bi ma dem Côte d'Ivoire mhm. la même chose xaw ma ñaata moo jëli torga ci man loolu yokkute la am na nañu tarbiyu am nañu jëli torika loolu sant yàlla bu baax baax am na ñoo xam sax xamuñu yoon baay mugadam lañ cheikh lañ mais fekk nañ bi ma daje ak ñoo ñoo ñëpp ñu ngi tarbiya jamono bi pour sama loxo parce que international parce que jogona bu Europe am na ñoo xamni dañu jël torga ci sama loxo wa mais moso leen gis mosuma leen gis bo mo sama digënté international ak ñoom mais ba légui ma ngi sakku ñaan ci pays barke bay dal mu gëna yok parce que liggéey bay rek li ñu soxla wa lool dal bismillah fekkee am na ma sha allah mhm. duñ def lu dul lu dul luñ mhm. lu def si nak bi mhm. xajim ci cin deug la dañ ko fiy dagg rek ba beneen kontaan nañ bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi lay jaajëfal ci waxtaan bi yaatu bi mm-hmm. ah macha allah dëgg la euh, lépp nga kale ko si bëgg bàyyi mm-hmm. bàyyi mooy solution lépp dëgg la ah dëgg la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax nga tàggatoo mm-hmm. bu dul tàggoo alhamdulilah ñu ah. doyaluñ wax dëgg yàlla dëgg la waaye nag temps bi moo demee loolu c'est vrai c'est vrai euh, alhamdulilah euh, kontaan bu baax baax maa ngi la nuyu Hawa Camara Ah, jërëjëf yàlla nga leen fay ak sunu patron bi tamit sunu mbokk Umaru voilà moom tamit macha allah ku baax la bii mooy suñu deuxième fois ñu daje. ma xam sama mbir ak moom daal ba léegi xaqiqatu Mouhamed la Mouhamed la rek. parce que ñaare ñaare rek. waaw man maa nekk seen ñaare nit pour tànnal. ah loolu daal ma xam maa ngi nekk ci xaqiqatu Mouhamed ba léegi. loolu maa ngi ko gërëm maa ngi sant bu baax baax. Eh, maa ngi saku ñaan ci xaalis suñu kalifa général mm-hmm. mooy Mouhamed Mahi. ak sunu imam akbar Cheikh Ahmada Tidiane ak sunu eh, porte parole tamit eh, Cheikh Massissé ak sama wasila ci buntu bay, moy cheikh mohammed al amin baba lamine nias ñu ko ñaanal yalla yalla may ko gudd fan ak wër yaram yalla eh, nako may tawfik dal jamono bu nak ak jabotom yépp eh, ma ngi sakku ci mom zahir ak batin ci ñaan dal mu saka mu ñaanal ma dal asi ah, ñoom seen yaakar seen ñaan rek la soxla ak bépp talibi bay ma ngi leen ñaan sakku ñaan ma ngi leen ñaanal tamé yalla tek ñu siratul mustaqim ak julit tamé ma ngi ñaan dal yalla jamm ci senegal yalla jamm ci senegal Sénégal ak Afrique yëpp ak bé dëkk jullit daal yàlla def jàmm foofu Omar tam yàlla na yokk liggéeyam yàlla na yokk liggéeyam may ko fatul kubra fatul kabir fatul biin fatul karibu yàlla na ko may ak jabootam yëpp yàlla sedd kolom yàlla sedd xolam wax dëgg de Barham TV képp koo xam ne bëgg na ko liggéey mu ngi liggéey ci benn bëgg na ko sopp na ko rek yéen na ko lu baax rek mhm. yàlla na ko may avantage ci barki baay yàlla mun na ko ci diine ak doomu aadama yëpp incha allah ñu ngi ñaanal yëpp mhm. yàlla def ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu ah, sama soxna yi tamit ñu ngi fi eh, Lala Koulibaly eh, moom sama soxna la mooy sama deuxième mm-hmm. ak Aïchatou eh, Cissé mooy sama awa ak sama doom ak taalibe yëpp ak kii sama xaritu Ousmane eh, yàgg nañu trop depuis ma nekk célibataire moom laa ànd <laughs> waaw mu nekk taalibe bàyyi ku am pas-pas waaw ku baax alhamdulilah waaw ak sëriñ bi tam eh, Midine Baye Midine Mouhamed Thiam ñun ñoo doon liggéey ci xadara ah, bi incha allah alhamdulilah kontaan naa mm. lii daal maa ngi leen uh, masaw coono seen mm. déplacement tamit incha allah yal na leen fay daal zahir ak baatin incha allah boo beneen yoon wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mouhamed Traoré mooy muxadam bu baax mu xaddam bu am yitte ku wàccee boppam macha allah euh, ñu ngi koy jaajëfal gis nañ liggéey bu rafet bi muy liggéey fii si Tiwaawan Pël ànd seeg ñaari soldaaru baay yooyu mu di Maolana Baay Medoune Ba kenn dootu leen ko présenté ndax su ma teewee rek maanaam Baay Medoune Ba day teew. kuma xam-xam mag awu baye medun ba waye cheikh cham ci ñu zakir kabir Bob mu xadam bu bob ma sha allah la bir torop ñu koy ñaanal yalla di leen ñaanal yalla yeen xam li ngeen bëgg ci digg apex bi ni yalla na baye yombalal leen te ala kulli da dafay am ndax am ngeen nitte bi oyof ngeen bax ngeen jaayu leen kenn affaire sha allah ginaaw lool nak ñu ko fi yemalé ba benen yoon ci benen kangam maulana cheikh ibrahim niass waye duma tek te duma remercier suñu président Omar Djiné comme niñ koy waxee bay Omar Ndjay mm. ha. Ah, ñu koy jaajeufal bu baax équipe technique barxaami yéen ci bi duma faté Mata bay, ak tonto bëgg bay Kep ha. Ah, ak ñu nekk si ginnaaw euh, barxaami yéen TV yëpp ñu leen di gërëm bu baax di leen sante di rafetlu liggéey bi sha allah luñ naan peccum liir mom bu nexé nday jaaté sa mbag ya dëgg-dëgg yeenay suñu nday yeenay suñu mbag yi ah, ma sha allah buñu buñu bu fi ni liggéey bi yéen ko yéen a ko rafetal waaye tamit du ma tëj te du ma eh, jaajëfal ku nga xamante ne moom moo ma maquillé ba ma neex a xool macha allah muy Tima Beauté Tima Beauté moo jaar si kanam bi gis nga nu ma taaxee nii mu defar ma ba ma yaañ képp ku nga xamante ne bëgg nga Tima def ak yow nu mu def ak man dangay ñëw fii apit si rond-point jonn su ko defee boo ñëwee dina la defaral ba mu baax ànd sekk laa biir mbokk yeeg xarit yi lii lañ la indiwuloon tey si suñu chaîne bi di Barhamiennes TV vision de la fête autrement li leen di jox rendez-vous beneen yoon ci beneen tàngaam incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وسلام على الطريق الإيمان دونه المسكع والكبار وسلام يا ذهب يا ذهب لا تزل تنبه زربا